되겠지. 예.

ministre de daal dafay ou wu jëmale ko daal ci ay prérogatives am lan la Diomaye daal di tontu néna li di loi bi permettrewul ben yoon di premier ministre mu dal di usurpé li nga xamanteni dal moy ay prérogatives am mais ginnaw nak li nga xamanteni ni ngui koy gis ak li nga xamanteni tontu nak dafa melni dafa xaw a ci terme li nga xamanteni moy 79e assemblée générale bu Nations Unies ki di président de la République du Sénégal mom moo accordé li nga xamanteni moy ben entretien li di chaîne de télévision Al Jazeera ginnaw loolu nak abordé nañu ay sujet yu bari yo xamanteni majeur la bi ci bok nak jëmale ko daal ci walu gouvernance ak réforme jëmale ko ci walu institution ak situation politique bi nga xamanteni Sénégal notamment ci rôle bi nga xamanteni premier ministre mi ngi koy jouer ci lorum li di gestion réew mom moom ci boppam dafa affirmer que l'idée di texte yi permettrewul benn yoon di premier ministre dal di revendiquer lepp lo xamanteni ay pouvoir la yo xamanteni ni daf insister jëmale ko ci ben respect bo xamanteni institution sénégalaise yi ginnaw lol dal lepp lo xamanteni xamante quoi xalaat na dafa don lu utile pour que ñu fàttali ko ki di premier ministre amul ben yon dal di démissionné ci benn poste boo xamante ni bu ministre la jëmale ko ci premier ministre en tout cas lépp loo xamante ni daal def na ko lu normal la mi ngi occupé benn place bu importante jëmale ko daal ci architecture gouvernementale ginnaaw bu mu nekkee lii nga xamante ni mooy chef d'emblée daal di préciser moom mii di jomay ginnaaw loolu daal mi ngi poursuivre que amul benn yoon boo xamante ni occupé wu na benn place boo xamante ni ci scène bi la ginnaaw loolu daal benn cadre d'exécution la jëmale ko ci ay mission yoo xamante ni au delà suñu sukkandikoo ci loi ak lii di constitution mënu ko permettre mu usurper jëm ci ay prérogatives am ginnaaw bi nga xamante ni moom mii di premier ministre am defu ko loolu la wax lépp nag loo xamante ni ñu ngi koy déployer de manière efficace jëmale ko daal ci cadre li nga xamante ni mooy mise en œuvre du projet dafa jëm daal ci li nga xamante ni mooy satisfaire li nga xamante ni mooy train bi jaarale ko daal ci li nga xamante ni mooy loyauté engagement ginnaaw daal ba mu ko xamle moom mii di Diomaye loolu daal la xamal journaliste Al jazira yi waaye su demee ba journaliste Al jazira yi gis loolu di ko ko posé je crois que plus particulièrement sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi koy dund ndaxte li ci ëpp ci loo xamante ni ay prérogatives u président la dañuy gis souvent premier ministre ci wax barki démb dégg nañ ko muy wax ci ci base militaire yi nga xamante ni maanaam mooy française yu nekk Sénégal alors que lépp lu jëm ci politique militaire je crois que kenn rek la ko constitution may muy président de gis nañ ko fii mu dalal ay ambassadeur lépp lu jëm ci wàllu diplomatie étrangère je crois que kenn la ko président may xëy na nag président gisul yooyu bërki démb gis nañu lii nga xamante ni daal mooy euh, jëmale ko ci euh, wàccee kii di Aminata Mbengue Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo moo ko njëkk annoncé balaa président bi di ko gis nañu lii nga xamante ni tey keroog bu mu toogee euh, euh, les artistes célèbres dafa taxaw ne bépp ministre boo xamante ni maanaam jël nga mille francs lu ëpp loo xamante ni xaalis état bi midi 30 mu dàq la kon yaakaar naa président donc la ko may parce que mon moo am big buy signé moo am décret lii nga xamante ni mooy bi motion de censure moom xamal que motion de censure doom ndaxte dañuy tas assemblée nationale le 12 dinañ tal leneen alors que assemblée nationale boobu mën nañu jàpp ni que tey kenn rek ko ko mën a tas muy nga xamante ni maanaam le président de la république kon donc su nee gisul loolu en tout cas Al Jazeera du loolu la gis sénégalais yi du loolu lañ en tout cas muy kàddu yoo xamante ni di euh, Diomaye dal dina ko. tontu waa Al Jazeera ci biir loolu nag kii di président Macky Sall indi na ci ay leeral jëmale ko daal ci premier ministre bi yan pouvoir la ak yàlla amul nañ déglu ji président Macky Sall. kon xam nga dafa am nit ñi lu ñuy jaawatle te jarul jaawatle xam nga diggante président ak premier ministre ay pouvoir amu si man nekkoon naa premier ministre Abdoulaye Wade mais moom moo yoroon nguur gi du man moom la ñu fal premier ministre régime bi ñu am amul benn pouvoir kon nit ñi xam ko. amna nak luñ ko dënk amna responsabilité amul pouvoir délégué nañ ko administration bi loolu premier ministre bu ko xam di nga liggéey ku ko ci xamul da nga foog motaar yi yuuxu nga foog ne dara nga te amuloo pouvoir le pouvoir appartient à celui qui est élu quelqu'un qui n'est pas élu n'a aucun pouvoir kon yaakaar naa ni leer na lañ diggante président de la république ak premier ministre amul benn pouvoir bu ci am amul dara lu ci am ku leen ko wax mi ngi leen di nax moom Macky Sall bi balaa muy nekk président nekkoon na premier ministre Abdoulaye Wade mais amul woon benn pouvoir lépp loo xamante ni am na président moo koy jël kon donc yaakaar naa ni leer na ci askan bi leneen nag luñ ci gis maanaam usurpation de fonction la donte moom nee na gisul benn yoon boo xamante ni premier ministre am def na usurpation de fonction donc ni ko Olof Njaay di waxee rek nit moom li bëgg gis rek lay gis lu bëggul gis du ko gis.